asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ak xarit yi ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen ñaanal jàmm di rafetlu ànd bi nga xamante ne bi yéen koy ànd ak ñun euh, tey jii di samedi boo xamante ne bi samedi bu spécial parce que waxtu wi daan na fekk émission bi daanaka nit ñi suivroon ko ba pare waaye tey nag dafa am xew-xew boo xamante ni bi dafa xew eh, muy xew-xew boo xamante ni bi xew-xew bu am solo la parce que lu ni mel maanaam daawuñu ko faral di gis lu mel noonu mu yam loolu moo sabab ñu daadee bàyyi ba waxtu yi ñuy soog a tàmbali di def émission bi di nuyu taala mi nga xam ni moo nekk ci technique bi di kontaan ci moom bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ni mi ngi koy taxaw ci émission bi nga xam ni gars yi dañ daan taala mooy technicien bi waaw ñu ngi koy nuyu eh, di nuyu aussi euh, sénégalais yi nga xamante ne bi ñu ngi ñuy bàyyi xel ak fu ñu mën a ne di lu bu baax ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy dégg tey nag émission bi euh, dafay nekk émission boo xamante ni euh, jàpp naa ni sax am na lu bari loo xamante ni euh, du koy jar waaye dafa am loo xamante ni moom mooy bit bi tey muy luñ musta gis dafa am waaye laataan muy am dafa am lu ci am gis nañ ku ci mel ni Pape Djibril Fall yëkkati ay kàddu wax ni ñi nga xamante ne bi kat ñooy waa Pastef dem nañ ba askan wi kii watuñ leen ba mujj gi ñuy dugg ci ay saal parce que wóolootuñu euh, fi nga xamante ne fii daal fa lañ wóoloo amatuñu sécurité ci réew mi noonu la ko waxee gis nañ aussi tamit Bougane ne woon day dem ca fa nga xamante ne fii mooy Bakel mu mel ni am na loo xam ni xew na takk der yi téye nañ ko am na loo xamante ni bi wax nañ ko ko li sabab warta yegg foofa waaye aussi daañu ñëw nag félicité ñi nga xamante ni bi aussi tamit ñoom lañu laaj ñu yëkkati seen alal ak coona dal dee dem muy ñi nga xamante ni bi ñooy les patriotes muy taxawaay bi nga xam ne ndaw ñi nga xam ne dañ ñëwoon bàyyi nañ Ousmane Sonko waaye dinañ ko tëjee ki nga xamante kii mooy Ousmane Sonko muy kàddu yi nga xamante ni bi yëkkati na ko am foo xamante ni fii jëmale na ko fa jëmale ko ci ki nga xam ni euh, mooy wax na wax yoo xamante ni bi euh, wax yu am solo waaye dana am na tamit picc yoo xam ni sànni na ko ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax bugaan lii mooy li nga xamante ni bi mooy émission bi nga xamante ni bi moom la ñu war a def tey mbokk yi ak xarit yi ni ma leen ko waxee muy ki nga xamante ni moom la ñuy tuddee Pape Djibril Fall Pape Djibril dafa yëkkati ay kàddu daldee ñaawlu lan la ñaawlu mu ne ñi nga xamante ni bi tey ñoom ñooy dem ca arena maanaam dem nañ ba yëg ni amatuñu sécurité ci réew mi maanaam daal ni mu ko waxee mooy nit ñi bëggatuñ leen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 mu nekk kàddu yu reelu mu nekk kàddu yoo xam ni wute na lool ak li nga xam ni mooy dëgg pour bañ koo wax ni ko waxul dëgg waaye kàddu yi dafa waroo li nga xamante ni bii mooy dëgg et pourtant Pape Djibril Fall li tax man mbir mi garaaw ci man mooy bi mu koy wax xam na ni li muy wax amut et pourtant wax na ko te biir na ko ni li muy wax du la am man damay wax ni fan la nit di toll ba ñemee jàkkaarloog askan wi di wax lii fan la nit di toll parce que li tax ma ne fan la nit di toll mooy Ousmane Sonko dafa ne maa ngi woote ca Dakar Arena mu nekk ca jam ñaajo mu ne ñu war faa def seen méga meeting loolu lañ fa war a amal Ousmane Sonko wëlbatiku wax ni ña fay ñëw de ginnaaw bu ñu paasee ba yegg si nañu indiwaale ku ne 1000 francs maanaam paas ngir dugg ngir dugg fekke ndaje moom loolu nekk loo xamante ni kenn musu ko dégg musul am Pape Djibril Fall moom ndeysaan ak fi ko nit ñi tegoon mu bett ñu bari mu taxaw wax ni ki woote lii de dafa xam ni nekkatul ci sécurité ci réew bi moo tax ñuy làqatu di tëju te moom boobu mi ngi génnee ci ab saal boo xamante ni bi ñoom fa lañ làqatu woon ngir wax seeni déclaration woo presse bi osé wuñu sax ñoom génn maanaam li ci ñoom la jël bëgg ko tuxal ci ki nga xamante ni ki daf ne nit ñi fekk leen ma jam ñaajo waaye bu ngeen ma fa fekkee jam ñaajo bu leen ñëw ak loxoy kese ñoom ñi nga xamante ni bi amuñu fitu woote mbooloo ñu bëgg a wax ne ragal gi ci ñoom newul ci ñoom waaye mi ngi nekk ci ki nga xamante ni kii moo woote ci jam ñaajo ne loolu mooy li nga xamante ni mooy ñoom ñoo ragal a askan wi pour le moment mais dinañ jàkkaarloog askan wi parce que dañu jëm ci ay élection boo jëmee ci ay foo jaar nga askan wi parce que mënoo ne da dem ci ay élection ba noppi ne doo jàkkaarloog askan wi loolu c'est pas possible nekk kon li nga xamante ni bii moom la Pape Djibril Fall def vraiment dafa nekk loo xamante ni man dama ci rus bi ma ko déggee damaa rus parce que Pape Djibril Fall nag nit la koo xamante ni euh, nit la ku ma nawoon yaakaaroon ni ku am avenir la ci wàllu politique man damay wax di Pape Djibril Fall euh, ndeysaan dafa perdre lépp loo xamante ni bii amoon na ko muy li ñuy tuddee crédibilité crédibilité dafa am solo ci àddina te fawee na boppam ba fi mu toll nii tey buy wax doo comprendre kii di wax sax ban genre nit la loolu nag dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la et pourtant mënul na am avenir bu baax ci wàllu politique mais li ko yëkkati muy ñi nga xam ni ñooy soppee Ousmane Sonko toppoon ko di ko partagé bi muy dugg ci politique dafa dugg rek. noonu ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko et pourtant taxaw yàgg na taxaw ci plateau di tàgg Ousmane Sonko di ko waxal ay wax yoo xamante ne bii wax yu rafet wax yi mu doon wax wax la yoo xam ne waxu dëgg la maanaam li mu daan gis la doon wax que bi mu fiy joxe exemple di wax ni Ousmane Sonko moom la ci leader politique koo xam ni Covid ñëw na mu ne ñi nga xamante ni bii ñooy ay ñoñam nañu dem di jàngal xale yi mu ne mooy ki nga xam ni wax na vacances citoyennes daan ne. ñi nga xam ne ñooy professeur yi nga xam ne ay Pastef lañ nañu joxe ay cours de vacances jox ko ndaw ñi te bañ leen a laaj mu wëlbatiku wax ni Ousmane Sonko mooy ki nga xam ni moom lay gis mu wax ni communauté ñi ànd ak moom muy patriote yi nañu dem maye di deret yooyu yëpp di ay baax-baax yoo xamante ni bii maanaam li mu gis la daan wax mais bi mu noppee waxatut li mu gis di créer boobu la dugg ci fii mu dugg te fii baaxul ci moom donc ñu ngi koy wax ne ko na delloo siwaat ab xelam parce que vraiment bu génnee li muy gis di ko wax di bëgg a créer loo xamante ni bi gisu ko rek wax ji day fas sax soof bërki dee boo jaay taxaw na fi ne dafa am koo xamante kii daf ne ko du ma la voter parce que joolaa lañ dugal affaire bi ci problème mu ethnie wëlbatiku na fi wax ni dañu koo bëggoon a song dañ koo bëgg a def lii mun a Ndour fay am problème mu ne gars yi xool leen léegi ci li ñu ne maanaam diaboliser sax da koo jàpp te xamu ko donc na delloo si waat xelam xam ni fa mu ne woon moo gën foog fi mu ne nii mbokk yi ak xarit yi euh, Bougane dafa ne day dem Bakel bi muy dem ci yoon wi ñu arrêté ko ñu seetaan vidéo bi soog a ñëw leeral je vous en prie. ay ay kon ñu noonu ñu noonu ñu koy gis war ngeen dani ñoom ñu koy arrêté pour dugg ko si ndax amul sax ñu bañ a ñu paquet ça devait pas se passer ainsi. filmé filmé ça devait pas se passer. vraiment. faut pas brutaliser. kii mooy Bougane un homme politique soi-disant homme politique bu xamul naka lay def ngir nekk dafa am problème mu nekk xamut mooy kan ak ci lan la ne Bougane dafa xamul loolu moo ko sonal et te nag yàlla bu la dogalee sunu borom dénk la tuuti teraanga xamoo ñi lay gën a jege te ñu ci bari bu fekkee ne alal ji lañu xool duñu la xamal waaye dañ lay wax ne la ci li nga nekk noonu la di la gën a puus bu boobaa nag boo doon dof bu ndaw da ngay mujj nag doon dof bu mag a mag am réew dafa am njiit njiit gi moom la ñuy wax président de la république lu xew ci réew mi moom lañuy xaar wala ay ndawam bu fekkente ni moom ci jëmmi boppam defut li mu war a def ay ndawam defuñu li ñu war a def laa bu boobaa kat opposition daal ñëw taxaw daal ne gis nga lii nga xamante ni bii xew na te président ñëwut ay ndawam ñëwuñ daal koy ñaawlu bu ko defee loolu léeg-léeg moo tax ñu lay wax ne la opposition dafa baax ci réew bu ko defee loolu kàdduy ñooñu opposition mën na ko yëkkati ba tax état def ay action loolu mooy li opposition di jal opposant tamit dina gis état dem def li muy def ba pare mu daa dee ñëw def li nga xam ne bii moom la war a def parce que moom it dafa soxla askan bi loolu it opposition dana ko def waaye opposition euh, ki nga xam ne dana day opposé wu du ko defandoo ki nga xam ne mooy président ñu ne président mi ngi ci gox sàngam nga ne dangay dem ca gox sàngam loolu mënul nekk c'est parce que war na xam ni lu mu gàtt-gàtt xel war na xam ni fépp foo xam ne président dugg na ba pare sax bu ñëwoon tey cib saal ñu ne président mi ngi ci biir bu xasee ba dugg amul keneen koo xam ne dafay dugg loolu la waroon a jàppee boppam ci wàllu politique mais Bougane euh, dafa nekk nit koo xam ni dafa xamul non seulement xamul mais defe ni dafa war a provoquer jéem a nuru nuru lu Sonko pour nit ñi dégg ko maanaam moom ni ma ko mën a waxee maanaam dafa bëgg a doon takkandeeru Sonko maanaam loolu la bëgg a nekk bu buñ ko doon misaal tey takkadeer la bëgg a doon maanaam moom amul euh, gis-gisam amul xalaatam maanaam dafa jàpp rek ne Sonko daan nañ ko tudd di tudd Macky Sall la donc bu ñu fexee moom ba ñuy tudd Sonko di ko tudd rek am na loolu la jàppe mais dafa xamul nan lañ koy tuddee ak tamit euh, ñaar yi naka la demee woon Macky Sall nekk pendant douze ñu jox ko yëf yi mu doxal doxut te nekkoon fi premier ministre nekkoon fi lu ne Sonko bi mu ñëwee nekkul ni Macky Sall la attaqué mais dafa attaqué système la attaqué pour Bougane comprendre un peu système la Sonko attaqué woon ne système bi moo am waaye ki ne bi mooy kat jamono ji nga xamante ni bi moom la Sonko di kii mooy Macky Sonko bi muy njëkk di wax ak ñoom ci xam-xam lay wax ak ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy ñi yoroon réew mi déranger leen sonal leen bés jot ñu dàq ko ci palaasu liggéeyukaayam biñ ko dàqee askan wi yóbbu ko assemblée nationale mu nekk assemblée nationale di fa def liggéey bu am solo sénégalais yi naw ko ci loolu ndax dañ koo déglu dégg ko xam ne li mu leen di wax wute naa ak liñ doon dégg mu indi lu bees doxalin bu bees ku mel noonu boo ko bëggee roy dangaa war a wuti xam-xam du alal mooy joŋanteeg boroom xam-xam demal wuti ji xam-xam jéemal wuti ji identité jéemal a defar sa bopp ndem euh, si yàlla si yàlla yàlla dolli ay reeram leeram euh, dafa dafa ñuy faral di nettali benn histoire pour wane vivre ci l'ombre nit parce que yàlla dafa dogal magam di Ahmed am na ay jamono moo ko gënoon siiw rakki Ahmed lañ ko daan wax daawuñu ko wax Sidi Sidi nee na mu xam ni dafa war a créer propre moom nekk moom boppam nee na ci la commencé nekk moom nekk ci ay mbiri boppam parce que boobu dañ doon rakk am mais Sidi dafa liggéey ba mujj gi bu ñu gisee am na dañ naan magi Sidi Lamine lañ koy xàmmee loolu mooy nga defar sa bopp ba nit ñi buñ la gisee dootuñu waxati diw waaye yow la ñuy wax loolu la Sidy Lamine réussir te buggaan dama jàpp ni jaar na ci Sidy Lamine te dégg na histoire Sidy Lamine Niass boobu parce que Sidy waxtaan naa ku ne ci lu mel noonu parce que kenn mujj gi kenn du wax ni rakki Ahmed Khalifa Niass mais dañ naan bu ñu gisee Ahmed dañ naan magi Sidy Lamine la loolu mooy nga réussir benn mbir jóge ci fii ngir créer sa propre identité loolu la buggaat munul te loolu mooy li nga xamante ni euh, gëm naa ni du ko réussir parce que loolu pour nit réussir ko il faut mu am xam-xam il faut mu am xam-xam parce que dafa am ñu fi nekkoon mu nekk Karim Wade mu nekk Khalifa Sall mu nekk ñeneen soo ko bi mu ñëwee jéemul ñu gisee ko xalifa jéemul ñu gisee ko Karim mais dafa créer propre identité nekk moom loolu c'est très important mbokk yi ak xarit yi ñu leen di sant di leen gërëm tey dama ne euh, vidéo bi balaa may wax ci Ousmane Sonko damay wax ci sénégalais yi sénégalais yi dañu nekk nit ñoo xam ni nit ñu muus lañ nit lañ loo xam ni nit ñu am dignité lañ nit lañ yoo xamante ni bi nit ñu am ngor lañ nit lañ loo xamante ni bi nit ñu am jom lañ mais dafa am benn période boo xamante ni dafa am ñu yàq lu bari ci jikko yi ba nit ñi dem ba defe ni sax léeg-léeg sax di nga doon senegale sax nga dem ba defe ni yow ni ñëpp mel rek nga mel maanaam xaalis rek nga gëm maanaam ñu indi ay termes yoo xam ni dañoo dem ba nagam ci balaa nga naan naam ne fa loxoy kajoor day weesaloo du ma dee ci lu ma amul dara am ay wax yoo xamante ne bi après dañ ñu ko nàmpatal ñuy dox ci wax yooyu mais wax yooyu ñuy dox mu ànd ak ñu di ko jëf am ñeneen ñoo xamante ni ñooy tibb yëf yi di jël sanqal si di ñu ko sànni weccat bi ñuy daw di ci ngër-ngër yi ak a xëccoo ñu dem ba defe ne loolu mooy senegal mais dafa am loo xam ni dañul ci ñun mais dañ ko nelawloo woon dañ ko nelawloo woon ba sénégalais bu nekk gisutoon réew mi mais ñu ci bari seen bopp rek lañuy gis maanaam nu ma ci génnee mais kenn lijjantiwul nu ci réew mi di génnee ak noo ci mën a génnee baax na luñ la jox nga am neneen noo ko doxalee sénégalais yi di dem ba bés yàlla dogal ñu dégg ab sénégalais bu génn ci ab bërëbu liggéeyukaay boo xam ni ñu bari ñu fa gis ñu fay liggéey gis nañ seen koom seen amam gis nañ lu bari loo xamante ni bi am nañ ko sénégalais boobu taxaw ne leen man de damaa dugg ci politique liggéey naa ci bërëb sàngam nangami ab fifty mosuma ko jël ci bërëb ba ma doon liggéey dans un premier temps nit ñi gëmuñu ko ñenn ñi gëm ñenn ñi di suivre ñenn ñi di déglu ay explication ay nit di def ay témoignages di wax ñenn ñi di suivre nit kooku ba li doon nelaw ci ñoom yeewu man dama jàpp ni li ma gis dafa am loo xam ni dafa yeewu ci sénégalais yi ba sénégalais yi gisatuñ ñoom seen bopp gisatuñ seen njaboot mais li ñuy gis mooy li ñëpp bokk muy réew mi ku ci ne ci ñun loolu mooy li nga gis sénégalais yooyu xeex joxe seen alal def li ñuy def bi ñu ko defee ba pare ba yegg si tey ci nguur gi mu des ngir ñu jox ñi nga xamante ne bi ñoom lañ jox nguur gi nu ñu liggéeyee ay jumtukaay diggante bu gàtt li nga xamante ne bi moom lañ fi jëlee woon ñooñu bëgg a gëmloo les mêmes sénégalais parce que ñooñu duñu tàyyi ñi nga xamante ne bi ñoo daan euh, manipuler ñenn ñi parce que benn élite la rek bu doon manipuler majorité bi ñu defee ni mën nañu manipuler waat majorité bi gëmloo leen ne ñii de kenn bëggatu leen ñu yaakaar ni mënees na ko mën nañ leen wax ne leen ñii de kenn gëmu leen kenn bëggatu leen senegale yooyu ñoom lañu woowaat tey ca arena laaj leen ngir ñu ñëw participer bi may déglu ndaje bi sànq Ousmane Sonko nee na pour le moment mbir yi yegg na cinq cent millions ci ay bu fekkoon ne benn sénégalais bu ñëw rek joxe cinq cent millions amul du am sens mais ci ay mille francs ay deux mille ay cinq mille ñii di dugal seen vingt cinq mille ñii di dugal seen cinquante mille ñii di dugal seen un million ba mu mat somme cinq cent millions sénégalais boobu bàyyi añ bàyyi reer daanaka topp naaj bi dem ngir fekke ji ndaje moom ñenn ñi fanaani dama ne politiciens yi il faut que ngeen delloo si waat seen xel xam ni dangeen di nax seen bopp mais réew mi mënatu leen a manipuler sénégalais yi mën ngeen a yor seeni rajo mu ngeen yor seen tele télé mën ngeen yor seen i journal yor seen nit ñu leen di defal ay revue de presse di inondé média classique bi mais mënu leen a fexe fexe fexe ba orienté Sénégalais yi parce que xam nañ li ñu bëgg te gëm naa ni di 17 incha allahu rabbi yi dingeen xam ni Sénégalais yi xam nañ li ñu bëgg mbokk ak xarit yi. dañuy déglu discours Ousmane Sonko dafa am ay pic yoo xamante ni bii lancé na ko Bougane parce que moom moom wax jooju ñu déglu ko te ñëw nee nañu levé nañu déjà lu mat cinq cent millions te yaa ngi continuer di dugg. nga ce gaalaama Pastef dama ne. kuy tibb tànk way wala ngay marquage culotte rek defal ñu gis loolu mooy nit nit bu dee danga koo fan ba tax nga ne lu mu def ma def ko bu wootee arena Dakar arena xanaa kay suñ tegee ñetti fan nga woote Dakar arena bu levee cinq cent millions xanaa kay nga góorgóorlu ne man sax levé naa cinquante mille francs ma wàññil leen ko rek moo tax li ma bëgg ñu jàpp tey mooy nous avons notre destin en main nañu gëm suñu bopp dinañu def les réformes qu'il faut après élection législative bi dinañu def les réformes fiscales qu'il faut parce que am réew xam ngeen lu ko yor réew lempo moo yor réew dama bëgg senegal yëpp xam ko la ngay dem lebi ji ci biti lémpo la rek boo xam ne da nga koo décalé parce que lémpo bi ngay fayeku ëllëg moom mooy dem fay ji loolu kon nañ def les réformes fiscales qu'il faut gi ma gëm mooy lémpo goo xam ne dañu koy wàññi ba mu yemamaay waaye ñëpp daje fay ko loolu mooy lémpo gu baax ndax pare ngeen ci loolu jërëjëf mbokk yi euh, damay wax ni damay wax ci Xaadim Bamba Jaañ dafa wax wax bu am solo wax boobu euh, dama koy faral di bëgg di fàttaliku fu ma toll daf ne Ousmane Sonko moo dàq politique ñii day politique ak ñoom comme ay xale yu ndaw mais da gis ci sorti ay Ousmane Sonko. Ousmane Sonko du def dara dara dara dara dara dara dara loo xamante ni bii calculé wut li muy def lépp lu muy def c'est calculé Sénégal gi yépp dañu àndandoo wax ni Ousmane Sonko bu mu tontu Bougane man mii ma bokk ci ñi nga xam ni loolu mooy li ma gis loolu mooy li ma wax dama ne Sonko soxlawut sox muy tudd Bougane soxlawu ko tey Ousmane Sonko ñëw tudd turu Bougane waaye Bougane la waxal ba Sénégal bi yépp xam ni Bougane la waxal Bougane tey am na mbégte ci li ko Ousmane Sonko tudd am na kontante ci li ko Ousmane Sonko wax ba ñépp xam ni moom la waxal mais lan moo tax Ousmane Sonko wax ak Bougane loolu mooy yëfi lan moo tax Ousmane Sonko wax ba ñépp xam ni Bougane lay wax xam nga Bougane da doon cëppi cëppi mais Ousmane Sonko soxlawu ko woon muy cëppi cëppi Ousmane Sonko musu ko soxla mais fii da koo soxla moo tax mu tudd ko defe naa ni ñëpp seetaan nañ Barthélemy Diaz démb mu génn wax démb bi mu génnee wax dafa wax waxinu man maay leaderu coalition bi man maa ko jiite dafa bëggoon a créer benn dualité entre moom mi nga xam ne mooy tête de ak Ousmane Sonko mi nga xam ne mooy tête de loolu la bëggoon a créer moo tax démb mu waxee sax ni mu waxee attaqué dafa génn pour attaqué dal ci kaw pour wane ni moom la ak ñii Ousmane Sonko daf ko wan ne ko Bart nawloowuma la sa onzième personne bi ngeen tabb ci seen liste bi moom la tudd onzième personne muy Bougane onzième moom la Ousmane ko tudd off tête de liste bi personne ba la tudd loolu boo seetee dafa karawaase dafa duma Barthélemy te laalu ko maanaam Barthélemy la Ousmane ko karawaase mais laalu baat tudd ko maanaam bugaan la ko dumaa loolu dafa nekk loo xamante ni lu extraordinaire la tey jii su bugaan bokkutoon ci liste boobu Ousmane Sonko du ko tudd mais bugaan mi ngi ci liste boobu bi mi ngi bëgg a génn benn dualité pour wane ni moom la ak Sonko Sonko wan ko ne ko xeeb naa la maanaam xeeb naa la daal tudd ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Bougane Gueye Dany maanaam tudd ko mais daf ko def allusion ba ñëpp xam te mënoon a répondre kële loolu stratégie politique bu extraordinaire la Ousmane Sonko def euh, mais nag di dellu encore di wax ni tey bi may seetaan Ousmane Sonko. dama ko xool yërëm ko ma toogaat ba ci yàgg yërëmuma ko ma toogaat ñee ko dama ko yee yërëm ba ci yàgg yërëmatuma ko ma ñee ko ñaar yooyu moo ma dal ci seetaan bi ma ko seetaan parce que Ousmane Sonko dafa toog ma xool ko xool jeunesse bi xool ndaw ñi xool espoir bi nga xamante ni moom lañu porté jëmale ko ci jëmm ji ma xool ko yërëm ko ma ne lii vraiment mbir la moo xamante ni mbir mu doy waar la ma natt ko ci sama bopp bu fekkonte ni bi nit ñi yaakaaree nañ ma nii man fan laa war a ne Ousmane Sonko jóg wax ma déglu ko bi ma ko dégloo ma ñee ko parce que lenn rek mooy li am sol am réew kenn mënta def lépp waaye ci jamono ji nga fay ne fexeel ba teg réew mi ci yoonu jub loolu rek changer l'esprit te Ousmane Sonko soppi na réew mi laataan muy jot réew mi am na ñu bari dama mës a déglu benn booy mu ne dafa rus sàcc ndax Ousmane Sonko mu ne rus naa jël lu moomul moom ndax Ousmane mënut a ànd ak Ousmane Sonko di jël moomul mu ne rus na loolu parce que kii war koo gën a gore mu leer ma ne ma ndaw ñi. connecté nañ ba pare quoi maanaam defaru nañ ba pare defaru nañ ba pare ndaw ñi defaru nañ ba pare lan moo leen defar mooy déglu nañ nit ki dégg nañ ko jaral na leen ñu yëkkati seen dërëm di ci def tax xam nañ ni nit la koo xamante ni ni ñoom la mel te ndaw ñi nangu nañ ñi kii warul leen a gën a gore kii ni mu mel war nañ koo mel maanaam modèle la bu ñu jàkkaarloo ñu fas yéene koo roy ngir mel ni moom ci njub mu def lu am solo yëkkati ndaw li nga xamante ni bii tey mooy ndawal Azer teg ko ngir teerloo ñi nga xamante ni bi seen làmmiñ yu rëy yi taxaw di ko critiquer mu tagg ko ci kanamu mbooloo mi pour ubloo seen làmmiñ parce que bërki démb bu leen fàtte ni Ousmane Sonko li mu leen waxoon lu leer la ne woon na El su jëloon lu toll deux cent mille dootul bokk ci gouvernement bi bi mu ko tegee ci pénc mi wax ñëpp yëg nañ ni ndaw li ndaw lu set la kon il faut faire très attention ci ñi nga xam ne ñooy manipuler gëm naa ni faalewu leen kenn ku leen manipuler. parce que ay nit ngeen yoo xamante bi ñu xam li ngeen bëgg ngeen te xam fi ngeen jëm mbokk yi ak xarit yi ñu leen di sant di leen gërëm di ñaan sunu borom taxawal réew sàmm réew mi ñaan sunu borom dëgëral njiit yi di ñaan sunu borom jàppale leen kàttanal leen teel leen ba seen mébét ci réew mi ñu mottali ko yàlla na yàlla dolli jàmm di gërëm sénégalais yëpp nag gërëm sénégalais yi tey dama seetaan dama fier ci nekk gi nga xam ne moom laa nekk Sénégal parce que jàppoon naa ni am na lu bari loo xamante ni bii mënu tutoon a ne ci réew mi ndekete yoo lu ko raw mën naa am ci réew mi il suffit nit ñi gis njiit lu leen joxoñ ngir ñu topp ko ñuy joxante dig daje beneen yoon incha allah ci kàttanu borom bi technique bi taala moo ci nekkoon jërë ngeen jëf